Tu penses Bof, si tu. C'est même pas la peine, hein. Ça a démarré. Je te prends, tu parles <laughs> Allez-y, <laughs> Bon, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Euh, je fais ce petit live parce que euh, apparemment, les gens disent à toutes les informations, malgré qu'on fait le maximum pour faire des, communications claires. Il faut savoir qu'il y a peut-être une intention de démobiliser les Sénégalais qui a fait qu'avant la fin de l'audience, Amna étude Djoré, euh, Ben Préverdic d'Adine, Ousmane Sonko, Gagnéna delloo nañ ko ci liste électorale yi ba nit ñi commencé normalement di bàkku ak di kontaan lolo nak dama yakarne. ne ñun ñi nga xam ni ñun ñoo nekk ci combat bi ñuy xeex contre le régime et contre décision yi nga xam mugi mu ngi ci kaw Ousmane Sonko bobu ba légui. kenn ci ñun warul tok naan décision bi def ma bête wala décision bi yëguma ko parce que buñu ñu deug rek yeen ñepp xam ngeen depuis Ousmane Sonko nous avons persécuté en 2021. vingt et un ba léegi xam ngeen ni amul lenn vis-à-vis du dossier de Ousmane Sonko Amoul, je fais vraiment ce live c'est parce que je ne peux pas répondre à tout le monde je ne peux pas donner d'informations à tout le monde je profite des réseaux sociaux pour donner mon sentiment à tout le monde. ku xamul wala yëgoo wala nga nek nan yow da nga am surprise wala da nga am lu bête, bett may xaw parce que yow go gëmee ni Ousmane Sonko lee ko yóbbu ci kasso bi volonté politique le pour empêcher ko mu nek candidat go gëmee ni Ousmane Sonko li tax ñu japp ko bisu tay bi deful dara il est innocent c'est juste pour empêcher ko mu nek candidat boo gëmee ni persécution yi yëpp mu dund dafa bokk ci processus bo xamantene euh, c'est pour liquider un adversaire politique soko ko gëmee waruloo am doute waro tok nan li lan la ak lee lan la waruloo ko am li nga wara xam rek moy jamono ji dara changé wul ci euh, état bu ak procédure Ousmane euh, Macky Sall vis-à-vis de Ousmane Sonko dara changé wu le président Macky Sall et son régime ont décidé man ak yéen ak ñun sénégalais yi bëgg Ousmane Sonko ils ont décidé de tout faire pour empêcher ñu que ñu votions voter Ousmane Sonko loolu mom lañu nous fi tay ben décision de justice le Ousmane Sonko am mu nek à sa faveur mu ngi ko amé ku euh, euh, euh, Ziguinchor tribunal d'instance bu Ziguinchor agent judiciaire de l'État indique au fii juge bi décision na décision boobu kese la décision boobu delloo na à zéro anéantir chance yi nga xam ne moom la ñu amoon ne ne léegi dañuy delluwaat cour d'appel loolu nag pour ku comprendre ngeen comprendre que noonu mooy décision du juge sabassi fay jëloon teg ko ci droit tey cour suprême décision boobu dañu ko kase bu ñu koy kase nag ñeenti mbir lañ leen indil ñu ne ñaari ñoo baax ñaar yee ñoo dem ne daal di jël mbir mi comme ku yor sa sa sa sa sa pastèque ko ci digg bi xar la poir en deux. nañu léegi da ngeen di delluwaat cour d'appel parce que Ousmane Sonko Dakar la dëkk c'était kër góor gi la dëkk euh, fi ñu toll nii nekk ñun man de sama responsabilité def naa ko ba mu mat sëkk moo waree taxaw taxaw naa. bu ma waree wax waxna naa bu ma waree dem demna naa bu ma waree dox doxna ku nek nak da ngay xol yow est-ce que c'est responsabilité yow lila war def nga ko wala lila war nak defoko lolou kessé mom mo fi nek lu ci weesu mooy la vie ne s'arrête pas à ça parce que Ousmane Sonko wax na leen ko démb jox na leen message ne leen du fond de ma cellule je vais continuer à résister parce que mom nak lii bett ko parce que mom xam ni lalu hôpital be mu teud du ben délit moko ko fa tëral mais volonté président Macky Sall moom moo fa tëral

on ne peut pas être là. je suis désolé Je veux vraiment faire ce message pour couper. J'interdis, vraiment j'interdis à tout patriote d'avoir un sentiment de déception. Je me l'interdis et je vous l'interdis. Parce que pourquoi nous n'avons pas le droit d'avoir un sentiment de déception Pourquoi nous n'avons pas le droit d'avoir un sentiment de, désarroi Pourquoi nous avons une masse Parce que nous savons que nous xamoon nañu ni sunu waay dañ ko bëgg ko bëgg liquider politiquement kon dara waru leen kon ngeen les plaintes là les joies et les tristesses les gens n'ont pas besoin de ça gardez vos tristesses ravalez cette tristesse cette tristesse faites-en de la colère faites-en de la force la force de vous mobiliser de façon pacifique et de d'être debout vous avez le droit d'être debout de façon pacifique vous êtes un peuple libre les gens libres doivent circuler. Les gens libres doivent assister. Les gens libres doivent être debout. Soyez debout. Ravalez votre tristesse. Ravalez votre amertume. Et redressez-vous. Redressons-nous. Parce que c'est le moment. Aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain. Continuons le combat. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Nous n'avons pas le droit d'être surpris. dara jeexu Qui pour connaître que patriote message bi sa message la Amulo sañ-sañu teud nan tay amna luma metti sama yaakaar tasna dedet parce que waronga nga xamni volonté bi tej Ousmane Sonko volonté bi nga xamantene ne juge àtte ñu jël ko diko volonté bobu xam nga ni c'était pas pour jox Ousmane Sonko ses fiches kon gëmu leen loolu kon yeen ba légui gëmagu leen loolu bu ñu dess gëmaguñ ko kon ñu joxante rendez-vous ba ci kanam fekk ngeen gëm ko mu dugg ci sen bir bop merci beaucoup